jaajëf euh, grand Amndal Lo yaakaar naa ne internautes yi euh, ñu ngi bég bu baax a baax donc Weekend Stars c'est pour yéen ndaanaan ñëpp dañu fiy jaar kuy sénégalais di yëngu ci wàllu événementiel wala ngay artiste da ngay jaar ci li nga xam ni mooy Weekend Stars yaakaar naa ne ñi ñi yëngu ci social sax dinañ jaar ci Weekend Stars voilà ñoom tamit dinañ ñëw fekk suñu ñu ngi ak mouvement euh, Médina pour ñëpp voilà Medina bi nag euh, euh, dañuy. Euh, mouvement la boo xam ne non non dañuy critiquer. loolu kaay taxawal nii dañuy kii booy Medina yi yow dañuy critiquer seen caméra ngi nii. <laughs> waaw balaa ngeen naan yéen waxu leen <laughs> ngi nii. waaw eh, eh, taxawal eh, taxawal kii kan yow grand ñu nekk en direct nga yuux naan ko ay kii eh. eh, eh. sécurité sécurité la ah. mooy suñu sécurité ñun. waaw ah, ñun suñu sécurité dina ñëw yéen ñu ah, ah, seen sécurité. kii moo lay aar chaque jour. ayca ayca moo lay aar chaque jour. ayca <laughs> voilà mouvement boobu nag mooy <laughs> mouvement pour ñëpp Médina pour ñëpp alors je rappelle que dañuy organiser benn don de sang euh, bu ñuy def le 29 euh, euh, janvier bi ñu jëm biir Médina ñu ngi ko fay defee di nuyu bu baax Ablaye Diop technicien la biir Médina moom xam naa bokk na ci ñi njëkk a joxe seen deret parce que. donné euh, joxe euh, euh, deret c'est sauvé. deret Ablaye Diop waaw. <laughs> ndax deret bu ñuul. <laughs> aywaay sonal nga Ablaye Diop deret bi dina dar dina ñuul. Ablaye ñu mu toll noonu. président mouvement bi lañ toogal oh. salaamaaleykum. Oh, maaleykum salaam waa Weekend Star ñu ngi leen di jaar bu baax avant tout ñuy nuyu borom kër gi. muy suñu papa di Youssou Ndour de référence. parce que ñun bu ñu nee Médina wu ñëpp rek kon ça mën ko ni Youssou Ndour. parce que tey bu nee Médina baatu Médina wala. Médina bu tollee fi war a toll tey ci àdduna yaakaar naa Youssou Ndour participé na bu baax a baax a baax baax. Euh, kon mooy li ma wax président bi mooy Abdourahmane Laye Sow gars yi di mooy Lawder man da suma copain suma doomu ndey moom muy président organisation di DJ Bez. waaw moom it di def affaire bu naaj si biir maintenant ñu ànd tam suñu benn grand frère muy doyen de stage bi muy Alaaji Assane Ndoye comme bi ñëwee dañu ne plateau bi deux personnes comme yéen yéen a ngi biir RFM te RFM maintenant la nekk kon RFM mooy première euh, ñi yéen premier ñi njëkk invité ci don de sang parce que waaw yaakaar yaakaar naa tamit ni euh, RFM liggéey na ci Sénégal loo xam ni kenn kenn du ko waxtaanee ñaar wala ñett wala ñett kon tey bu fu mu bokk ñu ne biir Médina kon kon mi ngi xolu Dakaaru le 22 euh, waaw bi incha allah bu neexee yàlla Médina wu ñëpp nag c'est un mouvement la boo xam ni du mouvement du mouvement de soutien il faut mu leeraat parce que amul benn affaire politique bu nekk ci ginnaaw. waaw ok tax mu bëgg mu leer. mouvement de soutien mouvement citoyen la. boo xam ne dañu gis Médina mu nekk benn. xarkan amul ci ginnaaw Ndeye mhm. amul monsieur le ministre Seydou Gueye. Mhm. amul monsieur le maire Bamba Fall. Mhm. amul seen DG Cheikh Tidiane Ba. ñoom ñëpp kenn nekkul ci ginnaaw li nga xam moom ngeen def nii. li ñu def nii kenn nekkul suñu ginnaaw. yeggali waaw pour mu clair. Euh, mouvement bi ñu koy taxawal dañu toog gis Médina. Euh, mun mu commencé am beneen xar kanam boo xam ni gisuñu tuñ ko te Youssou Ndour dafa am lu mu waxoon dana woon kenn mosu xam ci caaxaan kenn mosu xam ci dara maintenant bañ na ba ay temps boo génnee dem ci yenn endroit yi boo nee Medina dafa am benn xar kanam boo xam moom la doon joxe nekk xolu Medina euh, la doon jógee mhm. lépp Medina la doon référence bi Medina la waykat bi nante yi Medina la mhm. mën sañse yi Medina la booy <laughs> jantal yi booy nga xam mais dañu toog benn côté toog nangu ñëw ñun nañu ne dañuy def benn mouvement boo xam dañuy approché ñi nga xam ni euh, dañu toog dara ñu woo ci social social bi ñuy dox nag avant tout damay wax ci tuuti ngeen may ma tuuti rek ma wax ci programme mouvement bi dafa am ñeen ñoo ko waaw xam nañ ko waaw léegi euh, def don de sang boo xam ne day def day nekkaal en même temps lancement mouvement bi muy le ñu koy defee à la rue 29 foofu Euh, dépend commencé faj parce que nit mënoo dox te amoo wér-gu-yaram pour le moment képp ku ñu approché nekk dëkk bii maintenant feebar ñun ñu ngi daw def la tout dem seeti la waxtaan ak yow conseillé la jéem nu ñu nag euh, jënd ordonnance mais on peut participer ku njëkk ni tamit feebar nga ñu daw approché la jàppale la fan yi dañu sentiroon que ni Covid bi mu ngi waaj a jógaat ñu ngi waxaat ñu daw def benn set setal boo xam def nañ ko biir Médina di sensibiliser waale nit ñi joxaale masque joxaale gel tamit pour nit ñi bàyyiwaat xel ci loolu parce que feebar bi dafa ñëw te mooy li may wax naan nit bu amul wér-gu-yaram fii kon plateau bi tey ñun bu fekkoon tey am na neneen ñu mel duñu fi topp mais santaat yàlla daal bu baax a baax baax di gërëm waa maintenant ñi nga xam ne bi ñu affaire bi jógee ñoom ñëpp ñoo nañu approché ñu pour euh, amaguñu un mois wala ci la ñuy yem mais on a vendu plus de 300 cartes yoo xam ni seetiwuñu kenn nit ñi ñoo ñuy approché di ñu woo d'accord dañuy ñëw jàpp ci muy mouvement de rendez-vous le 22 waaw ñu on donne rendez-vous le 22 bëgg ñëpp ñëw jàpp ci nag euh, di ci commencé ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba Messi ñu koy woo mu ñëw mooy bëgg nañ mu ñëw joxe dara tam Cheikh Bamba Fall le maire sortant moom it ni nga ko ci woo mu ñëw madame Kane mi nga xam ni moom moo fa nekkal yow askan ñu ngi koy woo Pape Diop l'ancien maire ñu ngi koy woo Paco Juston Thiam président ASC Jàppo moom it ñu ko ci woo Adam Cissé mi nga xam ne moom moo fa nekk représentant ministère de la santé d'accord waaw moom it ñu ngi ko ci woo ci biir euh, d'accord ñu ngi dafa amoon tuuti insécurité bi fa amoon euh, mooy ci violence politique bi fa amoon ñun mouvement bi jóg nañ nag ñii jóg jóg nañu guddi seeti ñaari côté yi nga xam ni coow bi fa la mais le plus important mooy ñëw joxe seen ay deret parce que c'est sauver une vie donc ñi ngi rappelé gars yi ñu ñëw dès 9h le matin bu ñu ñëwee euh, mën a joxe seen ay deret ñi ngi gërëm bu baax Ablaye Diop également bi nga xam ne moo nekk RFM mm-hmm. Ablaye Diop nee na c'est l'anniversaire de sa femme voilà madame Diop ñu ngi koy euh, soxna Jaxate ñu ngi anniversaire soxna na dund bu baax a baax lu mu dund doyul mais man gis nga association yu mel ni nii. Mhm. Euh, au début dañuy jaay ay euh, ay cinq cent 1000 francs pour euh, koñ bi yëpp la. Mhm. pour population bi lay nekk mais à la fin day am benn politique bu ci ñëw dugg. Mhm. def ci ay millions yu bari ñu mujj ko féetale association bi loolu nag moom maa ngi ñaanal yàlla mu bañ leen a dal. Mhm. parce que ñun ñëpp Médina fierté la pour ñun. centenaire la ñu dëkk. HLM la ñu dëkk donc Médina la ñu bokk yaakaar naa ni mhm. c'est une boo xam ni dafa yàgg. et puis c'est une boo xam ne exemple la ci réew mi na ci jeune yi dëkk Médina yëpp bàyyi fa la ñuy xëy ñun chaque jour foofu la ñu dëkk. chaque ngeen dimbali ñu rek ba ñu teg ko ci orientation bu baax mhm. ci fullaak fayda kenn bañ ñoo puus wala yóbbu ñu fenn quoi donc le 22 ñu ci woo ñëpp na ci tamit Alaaji Assane ngeen baal ma moom it daf ñuy woo chaque fois di dugal ci bàyyi émission parce que bi affaire bi taxawee ba léegi mu ñuy woo di ñu conseil bu baax naan def leen nii ak nii ak nii wallaa dañ ciy santaat yàlla bu baax abaa abaa seet nañ ñu Euh, politiciens yi sees nañu tegal ñu ay millions tegal ñu kaale ngeen jàppale ñu mm-hmm. mais duñ ko def parce que dafa am loo xam ne mooy visage ñu ne ci lañu jëm social la dox nañu jàppale ci social bi quoi am na solo am na solo ñun kontaan nañu ci yéen bu baax a baax a baax donc di waajal euh, le xam naa ne duñ leen lu yàgg ndax